want. Yenegi Sen Sen, Rumi Venkat TV. jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di Rewmi 24 TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy doo rek kàddu yi nga xamante ne rek régime bu yees bi nag daal dinañu koy teg ngir doxalee ko nag réew mi mu nekk jub jubal ak jubanti nag ci biit réew mi nag mel na ni rek daal koy door ginnaaw nag bu ñu fësalee rek ne ñoom si seen jëmmi bopp rek fas yéene nañoo càmbar bopp moomeel yi nga xamante ne rek nguuru ko Macky Sall nag yoroon nañ ci dañ ñenn ñi nag di ci saax saax faaxee di ci def lu leen neex rek jot na nag ñu daal di defar ab audit jamono ji ñuy wax nag ñu ngi ci ay tànk nit yi nga xamante ne rek dañoo del suñu xaalis réew mi daal di koy lekk wala ñu def ci nag lu leen neex ci mbir mu nu mel nag kii di njiital réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag daal di nay teg li nga xamante ne rek moom mooy ay nitam foofa ci inspection générale d'État mu daal di teg ay directeurs généraux yoo xamante ne rek fas yéene nañ nag lañ bët bopp moomeel yi nga xamante rek dénkoon nañu ko nag ay nit ci ngoro nguurug euh, Macky Sall te ñu gis ne rek boobule bopp moomel daal dañ ci doon def rek lu leen neex jamono ji nag ñu ngi seen tànk ngir rëbb leen képp koo xamante ne rek da nga daal di taqee ci yëf yi nag wala nga laale ci rek yoon nag jamono ji nag mi ngi say tànk rek ngir euh, képp la ci mbir mu no mel nag lu toll ci fanweeri directeur généraux ci jëmi boppam rek la ñu daal di nag génnee ngir ñu xool bu baax saytuwaat bu baax nag bopp moomeel yi nga xamante ne rek dénkoon nañu ko nag ay nit dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw